fekk ay mbir yu mënoon a yomb yu am solo te mënoon yomb mu daal di koy fas jafeel ko ba nga xam ne day jafe lool moom loolu rek mooy yitteem waaye it fekk mbir yu rafet rafet moom amul lu muy def lu muy di ci gëstu rek toujours lu ñaaw di ci wër la ca ñaaw ndax xam nga euh, bu ñu waxee ne dara parfait wut maanaam mat sëkk bañ a manqué dara amut euh, ci yàlla bind lu ci ne soo baral suñ borooma léegi nag moom mbir yi bu ko fekkee mu tege nii lu rafet rafet rafet moom rafet loole taxu koo jóg seetu ko waaye lam cay seet mooy la ca ñaaw bu dee ay wax ju jib la ca ñaaw lay wër bu dee jëf juñ def mu tege la ca ñaaw lay seet bu dee it séq kum séqal la séqin wala ca ñaaw lay wër mu ne nit ñu mel noonu nag sori leen bu leen jege waaw ndax daanaka rek di jege leen loraange rek lay jur waaw nit dafa war a nekk nit ku baax koo xam ne lu baax lay xool moom lay déglu waaye it lu rafet lay xool moom lay déglu bañ a wër lu ñaaw bañ koo jéem a gis bu demoon ba dikki ko mbetteel sax mu mel ne ku ko daw su boobaa ci la ñuy doog a mën a waxee ne kii day nit ku baax la waaye bu dee daal nit moom lu ñaaw rek lay seet kon moom ci boppam nag moom la ab ñaaw-ñaaw nekk ci moom axyaanan indama tataammaqu li maarifati alxaqiqati aktar te doon na li jeex li taamal raa'ian yusamma raaxatul baal xakim bi nee na léeg boo dee gën a lu ci xam dëgg gi lu ëpp li nga ci xamoon maanaam mbir xew nga am luñ la ca xamal waaye daal nga mel ni ku ko xeeb di gën a xóotal sa gëstu pour gën a xam dëgg dëgg mbir mi nu mu demee nee na léeg nga def ko waaye boo bàyyiwul danga nga mujj xam ne ndekki woo am na mbir yoo xam ne réere woon ko moo gën a neex da gis ne réere ko am na caf ko gu am solo gu neex goo xam ne mooy xel mu dal ndax am na mbir yooyu soo ko ëmpalee sa xel day dal da jàpp sa njàmbur doo xam nu demee doo ci dara waaye boo ca xasee xam dara wala nga xam ca lu bari yow noppi nga tranquillité soo fit dootu toog sam xel dootu dal bal sax dootoo amati sécurité yow ci sa bopp te dara waralu ko lu may xóotlu ay mbir moo tax li ñuy wax curiosité jikko la boo xam ne léeg-léeg du baax léeg-léeg nit dana ko soxla ngir xam dara dolli ci lim xamoon waaye am na fooy xóotale say gëstu mën nga faa gis loo xam ne du jag day doon li wolof di wax jali muus boo ne faaw ma xam lu ci nekk ñu wax wax nga ne danaa xam lu ci ne mën ngaa gas ba yàgg nga dajeeg lu la taqal loolu nag noonu la amee it ci mbir yi xew surtout bu dee lu xewewut ci yow surtout bu dee fi mu xewe doo responsable ba pare nga ne rek da xam lépp xam lépp ga mën na laa jural xel mu ñàkkatee dal mën na laa jural sax bal ñàkk sécurité loolu la xikma bi doon jàngale xam naa li muy gën a soññee rek mooy nit ki moytu nag ak bañ kumpa bu ëpp waa ndax léeg-léeg am na mbir yooyu dañ ca kumpa baax na waa am na mbir yooyu soo ca bañee kumpa ba tax nga ne damay dañ kumpa lépp mën na laa jural ay jafe-jafe قال أحد الحكماء من غضب منك ولم يفعل فيك شرا فاختره صاحبا لك فالغضب يفضح تينة البشر xikma bi day wax ne koo xam daf laa mere waaye même bi mu la mere yi taxut mu def la dara lu lu ñaaw waxu la lu bon defu la ko nee na kooku booy wut àndandoo mën nga koo tànn àndandoo ndax mer fay génne origine nit manam mer day wane kan moy ki deug deug xam nga nit mën naa jéem a nëbb boppam mën naa jéem a camoufler jël ay melakan yo xamné ne mur ko wut lum ko neubé wayé bu méré dootu ko manati fu méré rek jikko ngén bi ñenn ñi di wax naa ah, ne may doo ko sa bop su fekké ni nit ki dafa mer dootut mën na nëbb boppam day wane boppam carrément mu ne kon nag ki nga xam ne mere na la te lim lay mere mere taxut mu wax la lu bon def la ko mën nga koo jël comme àndandoo te xam ne dootu la wax dootu la def ndegam bi meree la ko def dootu ko defati waaw kon daal euh, lim bëgg a leeral yaakaar naa ñëpp xam nañ ko am na doomu aadama yoo xam ne euh, dañuy ànd ak yow ci rafetal goo xam ne ñëpp dañ ci yéemu di leen naw di wax seen rafet jikko waye bes bo len defee lu la naqari ñu taxaw melni du won ñom buñ la masoon a gërëm dañ koy faté buñ masoon a rafetlu sa ben taxaway dañ koy faté wedd lepp luñ sédé won ci yow ci yiw waye wax la lepp luñ xam ci lu ñaaw euh motax damay faral di dégg wax bo xam dama ci man jigen faral di wax ngay gis ko xamne dañ nan def nga ne mos yow diw nga taxaw diko wax nangam jaaduna ci sa der keroog bi nga taxawee fii dem nangam ak nangam ji nga ko wax mu ne ah loolu daal xuloo la woon rek moom xuloo moom lu waaye buub xëpp sa morom loolu ku maîtriser wul boppam moo koy def xuloo wërta tax loo buub xëpp nit loo xuloo xuloo war ngaa am maîtrise bu toll ne boo ko munta nëbbal lim defit doo ko waxal lu mu defut moom waaw day gis koo xam day bëgg a àtte nit ci ci ne ah man kat keroog damaa dégg ñu ne nangam ak nangam ci moom nga ne ko moo xanaa du loolu de du dara ki ko doon wax dafa meroon dong waaye dara du ci dëgg lu tax ku mer di wax lu dul dëgg loolu du yoon waaw nit dafa war a contrôler boppam ba nga xam ne toujours li muy wax day nekk ci raison mu di ko wax bu fekkee ne mënu koo ñàkk wax rafet jikko ga nag mooy ca bañ koo wax xam ne am na waaye rafetut nga suturaal ko bañ koo wax loolu mooy tax nga nekk borom jikko ju rafet waaye fekkee dangaa dëggu rek te sa jikko sax taxut mu rafet su boobaa boo koy waxit dangay yem ca lam def doo ko waxaalee lum defut kon daal xikma bi loolu la nee daal ku merte gisoo ko mu wax la dara lu ñaaw deful la dara lu ñaaw sooy wut ànd na mën nga koo wut ndax mer ñaare day génnee banub nit ki bu nee banub nit ki mooy cosaanub nit ki jikko ji ne ci biiram mer daf koy génnee loolu la ma bi indi tey ñu sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah